ñu amee ci ndakaaru jamono ji maanaam capitalu Sénégal di ndakaaru mooy épicentre jàngoro ji di coronavirus yéen kaay gi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu lu toll ci benn fan am na lu toll ci juróomi téeméer ci askan wi ñoo xam ne amee nañu woppi coronavirus yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ay spécialiste lañu jëm ci wàllu wér gi yaram gi ñoo ngi wax askanu senegal ngir ñu jël seeni matukaay ci wàll wi yéen kaay gi di la xëy du ñu xibaar naan ñu démb lu toll ci ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn amee nañu doomu jàngoro ji yéen kaay gi di l'Observateur nee na ñettalu vague bi ma ngi ci Sénégal te jamono ji lii nga xam ne maanaam moom lay wane baaxul ci réew mi kaaw boo muy tuule ci la Sénégal jëm maanaam giraawal yi dugg ci ak musiba ma bu ba koo xam ne ngir Sénégal génn ci dina jafe loola loolee bay boo askan wi xam ko yéen a kaay gi di direct news xëy duñu xibaara nan ñu coronavirus ak yokk gi nga xam ne maanaam moom la yokk ci réew mi journal bi nee na tous coupable ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum politique moo xam Macky Sall am na ci part de responsabilité ba ci Ousmane Sonko ak Bougane Gueye Dany Omar Sarr yi Idrissa Seck ba ci Malick Gakou yéen kaay gi nee na bu ñu waxante dëgg ñi nga xam ne ñooy way politique yi maanaam seen politique bi moo leen gën ñor ka jafe-jafe yi nga xam ne askan wi mën nañu ko am ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi journal bi nee na en tout cas leader yi li nga xam ne daal moo leen di yitteel seen activité politique ñu koy def good fine yéen kaay gi di leen fu Thierno Bocoum xëy nee na coronavirus beeg yokk gi nga xam ne moom la yokk ci réew mi bu si kenn tudd kenn ku dul Macky nee na Macky maanaam régime bi lépp ñoom la yéen kaay gi Walf Fadjri xëy duñu nañu coronavirus bi tabaski gi nga xam ne ñu bari danañu def ay déplacement moo ko nar a yokk yéen kay gi xëy du ñu xibaar naan ñu Sénégal nag fii ak 2022 dina tabax nag ab usine boo xam ne dafay defar li nga xam ne mooy ay vaccin coronavirus yéen kay gi di source nee na bu kenn reetaan ci mbir mi nag bu kenn reetaan yéen kay gi di Walf Fadjri nee na Sénégal ngir nag mu daal di tabax boo xam ne dafay defar ay vaccin Sénégal dina wër lu toll ci cent dix milliards yéen kay gi di vingt quatre heures xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam na ñoo bokk ci PDS te nekk ci diwaanu Italie Sénégal yi ñoom danañu amal ay manifestation ngir nag sàkku ci Macky Sall mu daal di bàyyi Karim Wade mu daal di ñibbi ci Sénégal yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na Karim Wade Khalifa Sall mi nga xam ne génn nañu leen ci élection yi loolee tax na waa taxawu Sénégal ak waa PDS jamono ji ñoo ngi wàcc ngir xeex yéene kaay gi di L'Observateur ñu xëy fekk fa Abdou Guité Seck di aw waykat wax na ci carrière am wax na ci texte yi nga xam ne moom lay bind yéene kaay gi di mi ko di jeex xëy séq waxtaan wu yaatu ak Malal ñu gën koo xam ci Fou Malade wax na ci am njàngam wax na ci groupe bii di bataillon Blindé ak jamono ji ni nga xam ne moom la tase daat nay wax ne bëggul nag ñu koy présenté comme ab activiste ndax moom artiste rappeur la ba pare jamono ji nee na ma ngi waajal ab album moom ak ñagas wax na ne rab bi jamono ji rap dafa gën a intéressé ñi nga xam ne ñooy askan wi lu jëm ci wàllum démocratie nag ci Sénégal moom li mu jàppoo mooy démocratie sénégalaise bi dafa feebar yéene kaay gi da lay sëkko xëy duñu xibaara naan ñu bëri na ay sénégalais yoo xam ne ñoo ngi dee diggante Brésil ak États-Unis ndax dafa ay sénégalais yoo xam ne ngir ñu dem États-Unis ne Brésil la ñuy jaare ci ndox mi la ñuy jaara am na ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan ndax risque yu mag la ñu ciy jël yéen kaay gi xëy ñu xibaar nan ñu Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier war na nañoo amal ab face à face moo tax Gaston Mbengue promoteur bi nga xam ne moo tëgg lamb ci lu toll ci téeméer ci ay policier la nar a indi yéen kaay gi di sunu làmb nee na caat ak muuda anta ni ko suba ci dimanche ji la yéen kaay gi di estat ak record nee na Copa America bi war a doxot diggante Neymar ak Messi te ñaari joueurs yi kenn mosu see jël ab coupe ak sa réew moo see